Laurent Laurent yaa buur lamb ji lambi milieu la wax boobu ba tey leerul sax affaire am milieu lañ dund nii sax yóbbu na ma aar yóbbu naa ko aar mais man dara yóbbu ma nañ wàccee lis aj lis xale la gi nga ñii ñu doon naan ñoo yàq sees fii ku sa yaay yarul wala sa papa lis mënu la yar xale la yee ñii ñëw estat di yàq sees lis mënu si dem kenn naan ko baal yàq lis bëre la am yee nañ ko aji loolooy wax gi dañu gis

di ko ñaanal su amee combat ak ku mënta am yàlla na ko yàlla may ndam. Uh-huh. yee ndax moom man moom fii mu toll. yee ba jël ma man su ma fa tolloon du ma ko jël. comme man dama koy sant baax a baax. mbarki uh-huh. allah ji fàll. mais dañu gis Laurent dafa commencé changé bu njëkk bi Laurent di ñëw ci làmb gars yi comédien lañ ko jàppoon mais tey ñu gis benn Laurent bu serein bu bëree ci ay consigne ñëwul saraxe li muy def ba ko. soo gisee yow comédien nga ndax sa gaale soo waxee gars yi reetaan ñëppay comédien soo ma jël see sama gaale damay wax ba ngay daw bilaay walaay taalaay mais su làmb jotee dañuy làmb su làmb jeexee ñu waxtaan man la neex lool yëpp ay conseil ñii la ñoom bati dama ñaaw dem naa ardo def naa lu ne sama gémmiñ bi tey moo loolu. ruy laa reere. loolu kenn Balla Gaye Balla Gaye. yow loo ma wax foo jëm. Touba laa jëm. lan naa ko. Balla Gaye wala Bombardier wala. Eh, Lora arrêté waay eh, Lora arrêté. te Iri Fadam laa guy gi daa daanu barki ba na yow ñu bëre su bëggul moo xam.